Gaston Production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye 2 à Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji waa Pikine ne ñoo teg tànk waa Guédiawaye ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 Ikotaf Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 jaar bu mag Balla Gaye 2 jaar bu bees gars yi naan ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars yi naan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang dàqi ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le combat du premier. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu dalal benn ndaanaan ñu naa koy wulli mu nekk si làmb ji di bëre en même temps mu yore beneen structure boo xamante bi nii ñëpp xam nañ ko si lamb muy wulli production. di amal ay événement yu bëree bëri si biir làmb d'ailleurs gis ngeen ci ayu bis yi la ñu génn wala ay weer yi la ñu génn mu tëgg ki nga xam ne mooy Saalum Saalum ak ki mooy Buur Siin bu Bawal wulli nag borom boox borom fudaay borom reefan ñu war koo dala fas yéene waxtaan ak moom ci làmb surtout nag la première janvier kenn ku nekk xam ne Balla Gaye numéro 2 mooy bëre ak booy Niang numéro 2 booy Niang bi nga war a def open press am lundi bii ñu dëgmal incha allahu rabi le 26 Balla gay war a def le 27 kii Alsane Djigo lay defee kii ama Amadou Bari tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ji parce que war nañ cee waxtaan ak moom ku ne wulli na Gaston yaakaar naa ne combat yi mu am yu ci bëri boo xoolee ki ko lancé mooy Gaston Mbengue ci kalaaf ba nga xamante bi nii wulli bëri woon na ko bokk doomu Jalaaw bokk ak sofóoru El Hadj bi bokk caat bu booy bambara sofóoru <laughs> Gaston Mbengue <laughs> tey nag ñu fas yéene waxtaana moom parce que tamit tuddee na père doom tuddee jabaram doom kon yaakaar naa ne boo waxee ci gason Production wàcc nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi Modou Anta maa ngi lay nuyu di sant yàlla bu baax a baax di jul Seydina Mouhamed salallaahu taala alayhi wa sallam Modou. Hmm. maa ngi lay ñaanal fi nga ñëw. yéen a ngi fi yàgg. amiin ànd yéen a a fi am xiiwal. amiin bu Bouba moom moo ko ubbi moom itam hmm. yal na fi gën a sax. amiin Modou. Hmm. fu ma mos a waxee. Ah. fii moom gën a parce que fii mooy sama kër baay. ndeysaan sa kër baay nag sa kër la. waaw Gaston ku ma xam-xam ma ak moom. depuis 2002. la boole. ba léegi mosu ñoo xuloo mosu ñoo. am sax. Hmm, ñagas ñagas. 2007. Hmm. Hmm. laa am sama doom bu njëkk sama taaw. ma tuddee ko Gaston à 2007. 2007 loolu yàgg na. 2011. Ah. ma amaat doom bu jigéen ma tuddee ko sama yaay muy aawam mu yaay ndey mareem. macha allah. muy nit ku baax. mu nit ku gore. di ko ñaanal. yàlla na ko yàlla may wër ak gudd fan. Mhm. waa këram ñëpp bëgg ma nag. Mhm. makan fu ma gisee day laaj sama doom yi yaayam ak papaam. nga mhm. yaay Gaston Ndeye Marème. di ñoom Assane doom yi Gaston yëpp day mel ni ñoo bëgg ndey ak baay te ñu ñoo bëgg ndey ak baay parce que Gaston li ma defal amul ku ko commencé defal kilam. tuddee ko euh, doom. tuddee sama yaay. doom yi yaay Ndeye Marème doom Moussa mais moom moom tuddee day nit ku baax. macha allah la première nag. waaw ah. damay wax ne. Mm. sëriñ si gën ci YouTube bi di wax nañu noppi xamuñu dara <laughs> ñoom ñëpp laa wax xamuñu tous. képp ku taxaw ne lam ji du am waxoo dëgg lam ji day am. ah ñu ne de am bari na de. sëriñ si dañu non nañu arrêté ba pare ñi nekk ci làmb ji ñoo leen di jox information. Gaston feebarul Gaston ba ba mu tukkee France. Ah. met na deux mois. yàgg na de. ñu nekk làmb ji ñooy jox sëriñ su xamul tous ni info ñu taxaw naan gis naa mën jóge ci réew mi dem ci réew mi làmb ji du am làmb ji dana am. la première janvier. ñuy wax dañ leen di informer. bala Gaye ak Boy Niang dina am. bala gay feebarul boo Niang feebarul. Balla Gaye yara bu mu feebar Boy Niang bu feebar. Mm. nañu béy soxor ak bëgg promotion. Gaston ku koy yéene lu bon yaa ciy jiitu. ndeysaan. ku bëgg mu feebar bolam ji yàqu. Mm. yow yaay feebar ba sa say bot yàqu. Ah, billaay walaay say si wax yëpp nag laa wax. ku taxaw ne lam ji lu am waxu dëgg. ah mais mais ku taxaw nag wax ragaluma ku taxaw sëriñ bu taxaw ne. Hmm. lamb ji la premier sang du am waxoo dëgg la lamb ji dina am bu nu fi yàlla bayee. mbaa sëriñ si duñ la duñ la woo. Hmm, waaye fu waxu day am lan day am lu yàq lamb ji. moo ma jaaxal. ñoom lañu war a woo parce que du yoon nit taxawal kombaam def ci ay millions. Hmm. nga taxaw lamb ji leeru tak bés bi daal na bés yi la dem <laughs> loolu wax la nañ ba daal nañu bay nit di. di liggéey. Eh, ñu koy saboon bala ngay boo ñaan di entraîné ñu amay mbokk nga taw naan la am di rek gisuma mu am leerut mais bu nu découragé woo mm-hmm, bu nu découragé woo supporters yi. Mm-hmm. bu nu découragé woo amateurs yi. Mm-hmm. parce que lamb Balla Gaye ak Boy Niang Sénégal àddina bi yëpp ko bëgg soo fi mu ñu bëri danoo yaakaar ne du am. Mm-hmm. billaahi maa ngi ko wax la day am la première. amiin Gaston feebarul dara dal ko Gaston ba mu demee France yàgg na. coupe du monde la demoon 20 novembre la demoon. 20 novembre 20 décembre. janvier nga taw naan jóge na réew mi dama si réew mi ñu naan la lam ji yooyu bari yoon dañ cee war a def parce que man du ma nangu. Mm-hmm. teg sama làmb. waaw def ci ay million mm-hmm. Balla Gaye di préparé Boy Niang di préparé. ak seen waa Pikine ñëpp di pare waa Guédiawaye ñëpp di pare. Mhm. nga taxaw naan lam ji du am. Mhm. da ngay découragé sama mbër yi. ah oui may lancé appel. Mhm. supporters yi Balla Gaye ak supporters yi Boy lam ji day am la premier sans faute dara ko yàq. incha allah dara mënu ko yàq. yàllaa ko mën yàq yàlla bu ko yàlla yàq. amiin du ko yàq parce que lam bi ñëpp ko bëgg. di wax Balla Gaye ak Boy bi day am. sëriñ bu bëgg bës xam nga sëriñ si. Mm. xamul dara xam la la ba de dañu naan lam ji mën naa am li ay le problème sans dafa diis bés yëpp a diis benn bés oyoful. le premier janvier leerut bés yëpp a lëndëm <laughs> man moo boo xëyee lay leer guddi gi day la nam. waaw ah, waaw nga dëgg de. ñu toog guddi naan dafa nam boo xëyee mu leer nañ nañu bañ. Ah, soob la ñuy toog naan daal guddi gi lañ toog naan euh, bés bi daal la nam mais guddi day day day la dem. mais bi eh, mu ngi leer nañ la première janvier bu nu fi yàlla yóbboo dina am. bogatuma kenn di ñaaw njor naan lam du am. Mm. lam dina am Gaston. Mm. dara dalu ko. incha allah moom dafay tukki. Mm. Gaston li muy toog Sénégal. bariwul daa bari. kasu tëggul lam sax. makaan moo teg lam ji li. makaan waaw. kaso daa teg lam ji. tëggatul de. kaso daa teg lam ji. tëggatul de booy la. moo fi teg makaan na fi nekk mooy teg tom met na bàyyam makaan léegi daa galaaj. <laughs> barke sëriñ Bamba daa am gaaj amul de makkan ay kaan lay yor barke sëriñ Bamba sëriñ bu bëgg a yàq lam ji bu la makkan yóbboo ci xamuñu makkan makkan léegi daa am gaaj de doom ja baay dafa am galaaj léegi barke sëñ bi sëriñ yi di mooy di wax kaay nag billaay c'est sérieux Gaston sëriñ yii di wax barke Seydina Mouhamed ñoom képp ku ci wax ci làmb ji mm-hmm. ak sëñ ba mooy doon mm-hmm. Gaston la dax gis mu la bopp père billaahi wallaahi Gaston yàlla de billaahi du bi gastu yàlla da koo may billaahi wallaahi képp ku taxaw ne làmb ji du am yow sax boo may tuut lam day fekk nga feebar. ma waay. man man sëñ Sénégal léegi dinoo bëgg bës nekk ay comédien yoo xam ne léegi xool. man sax mën naa waxukaay du ñëpp nag <laughs> ñi wax ci lam ji laa wax. <laughs> loolu la xew. wax ci lam ji laa wax. waaye ça c'est <laughs> ah, mais ak très bien xam nga. saa Touba mi day référé xam la ma tax. Mm. mosuma dégg mu taxaw na. lam ji du am. loolu erreur la kat bu saa Touba waxoon ma dal ci kawam de. tax sëriñ si xamul tous ba pare barke alaaji Fallu réer ba suur bu di jot nga ne bi daal la dem. nga fay lamp bi ne lamb ji la dem mais boo xeemu mu leer ñoom <laughs> ñii doon yàlla sëriñ si leer say ginaar ne lamb yi la premier saa fee. daal daal la dem. secret la dem lam ji boo xëyee day leer nañ tëj na am. barke sëñ mbamba di jox rendez-vous ñëpp. le premier le premier janvier day am. incha allah. képp man ku ma xam-xam dégg na Gaston trop macha allah. Mm. di ko ñaanal gudd fon ak wër. Mm. ku ko yéene feebar yow billaay ay waay ñi xamuñu Gaston Mbengue mi ni sama baay <laughs> ku ku ko yéene feebar. boo moytuwul barke Sëriñ Bamba yaay feebar. feebaru de. may dara xel Gaston dara dalu ko. Balla Gaye dara dalu ko. Boy Niang dara dalu ko. ñoom ñëpp a ngi entraîné ñu ngi waajal combat bi. jërëjëf. le premier janvier. bi dina am dina rëy. incha allah bu kenn la waxati bu kenn la laal ma dinañ ko du am di gërëm ñëpp di sa ñëpp. sama benn booy dama ko gërëm. fa falu faal. mu ngi Touba amul yàqalaat booy bu xamoo ko booy bu baax la. boog bala gay bu jeex takk. fa faal. non faalu ji daa metti kii rek. amul yàqalaate. boog bala gay maa ngi koy nuyu mu ngi Touba sama rek sama xarit. di gërëm sama baay Gaston. yar na ko yaramay wër ak gudd fan. Mm. Makan doomam. Mm. lambu Gaston bu mu tëgg. axe damay jox xam nga ñoom barke sëñ Bamba mun ngaa tëral nit doom rëccu ko mhm. Gaston tëral ma ko doom rëccu ko parce que fu ma gis jox na ma sama cër ay doomam fu ñu ma gis jox ma sama cër Gaston lam bu mu teg makan dama kaay loo bëgg boo bëggee presse boo bëggee accès loo bëgg ma jox la macha allah bat si loolu loolu yéeg yéeg bu foor la kolere la kolere gu fort la macha allah Pape Modou Fall directeur l'emploi sama xarit lay il faut ma gërëm ko. dëkk Diourbel di jàppale Sénégal di jàppale Macky sal ah président Macky sal nag. Hmm. Pape Modou Fall li bu koy liggéeyee ci emploi nga soo xam ne Pape Modou Fall Pape Modou Fall dafa baax. jërëjëf c'est Alassane moom it nit ku baax la. jërëjëf jamay kee sama rak la waroon bëre yàlla may na. maa ngi ni feebaroon te wér na. Kalso kay nee na da ngaa daw. non moom moom moom man ay waxam nit. nee na kay lam def ca guy ga du ko dindi. non nee na lim la def. nit boo bëggee ñu may la xaalis maa nga bëgg bu naa ay di ma gën a sarax bi di ma gën a ma ma jox mais li ma xamal mooy maa ngi sant jàmm. combat bi bu soobee yàlla. di nga ko bëre di nga ko bëre te sax maa ngi wax jamay kenn pour ñu yóbbu ko Diourbel def ko drapeau Pape Modou Fall. macha allah directeur l'emploi parce que nag Pape Modou Fall nag. li mu liggéey Sénégal mérito na jam tegal ma combat. yóbbu ko njaareen di gërëm ñépp Assis Ndiaye ay la première bu Assis ñëw. Mm. Baye ñëw. Mm. Masata ñëw. Mm. borom kagul bu ñëw li neexul. ah neex na ci boo faralee Balla kay neex na. xaw ma nag supporter Balla Gaye la première bu bu Assis ñëwee Baye Alla Ndiaye ñëw. Pape Sarr ñëw Massata Ala Ndiaye ñëw. Pape Sarr ñëw borom kagu kagu bu lii la ngeen di waxat si lii. neex na de. Pikine bu Dégol sama baay bu ñëwee. waaw Pape Sarr ñëw. Paala Diop ñëw. Ibrahima Diop promoteur bi ñëw. Paala Diop ñëw. waa lii ñu bëgg ko yàq waa lii ku ko bëgg a yàq yàlla nga yàqu. amiin a <laughs> bu Serigne bu ma déggati nga ne lam ji du am billaay ma door ko. <laughs> billaay ma nga wulli ko waxal. Serigne bu ma déggati feet la première janvier nga taaw ci. télé ne la lamb ji daa lëndëm hmm. ma doo la yet wuli la ba nga nooy <laughs> ku taxawati ne lamb ji du am sëñ bu ko defati ma doo la yet ma wuli la nañ ba yooyu lamb ji la première tere mënu ko tey am bala gay ngi pare bu ñaa ngi pare que le meilleur gagne mbokk allah am na solo trop ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax wulli macha allah dégg ngeen wax ji yaakaar naa ne am na solo mbokk yaakaar naa ñu defaat si ndànk rek parce tamit mi ngi mel ni ki nga xamante ni dafa jël ay millions def ko ci benn business di ci xaar retour nga taxaw naa koy business bi baaxul. li nga jënd baaxul dañ la nax ak yeneen ak yeneen bu ko defee du day nekk ci xelam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waxukaay yi nag dafa bëri ba tax na kenn ku nekk di nga wax lu la neex mais kenn ku nekk nag na ko xool ci sa bopp wala bu doon sa papa bu doon sa yaay la bu doon sa mag la ak kum si man di doon le premier janvier incha allahu rabbi Balla Gaye 2 mi ma gis mi ngi pare te sax pour maanaam bañ a bëri si Boy Niang 2 mi ma gis combat bii ku ko nar a yàqal mu jël sa bakkan kon yaakaar naa ne ñaar ñooñu dañuy pare dégg ngeen wulli ni mu ko waxee. ba pare dafa am ñu ne kii biir lamb ji ñooy informé sëriñ yooyu. dëgg la di suufuwaate di suufuwaate gasoo di tukki ñu nekk ci làmb xam ne gasoo tukki na ñu woo sëriñ si ne gasoo tukki na nga gën di wax ku ko fi defati ku nekk ci làmb ak sëriñ yëpp ma wuli la. <laughs> danañu arrêté ah làmb ji ku ko bëgg a yàq barke Seydina Mohamed ma jàkkaarloo yow. incha allah bu neex nii. du yàqu premier janvier ñu war a bëgg ñuy gën di wax. waaw nañu arrêté ah. noppi leen ah <laughs> jërëjëf nag jëru ko ah non kaay jàpp ci gala kaay jàpp ci non le premier du yàqu billaahi dinañ bëri wuli non jàpp ci rek. lii nag bu ko père bu ko père gisee du ko neex xam nga yow da ngay xaritam jàpp si rek baal mu sedd baal mu sedd mayal ma ko ndox mayal ma ko ndox mbokk yaakaar naa ne noonu la demee gis ngeen wulli tey yaram bi tàng na xool bi fees na wax dëgg yàlla bu leen ko yàqal làmb ji papa moo tëgg yaay moo woote tudde na papa Euh, euh, turandoo tuddee yaay ja aussi tamit turandoo wax dëgg yàlla nañ ko bàyyi diggante ma gasto pour lamb ji am la premier janvier mën ta yàqu mbokk yi lii la woon di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston production jërëjëf. Gaston Production le Don King de l'arène na le 1er janvier Balla Gaye 2 wa waa waay ne ñoo yor làmb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Géejawaay ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Icotaf Balla Gaye 2 jaar Rue 10 Balla Gaye 2 jaar tali bu mag Balla Gaye 2 jaar tali bu bees gars ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars yi ko déet Balla Gaye 2 waa Boy ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le combat du